politique bu ñu ko toppee science la boo xamante ni lu jagal àdduna dong ak lu defar société bi moo ko taxoon a jóg mais bu fekkee dañuy dem ba léegi nag dañuy àgg foo xam dañuy verser ci banditisme baaxul verser wu ci euh, xasante tàncante jëwante tëroonte loolu baaxul loolu nan ko bàyyi kon loolu bañ koo def moo gën waaye bu fekkee dañ cee jublu ngir liggéeyal sa dëkk liggéeyal sam réew liggéeyal sa continent liggéeyal àdduna loolu moom lu baax la ah koo xamante ni bëgg nga caa dem boo ci amorcé boo ci jaaree nii nga ci war a jaaree ni ma ko waxee ànd ak yar ak teggin ak taalibe gu mat sëkk ak jàmm foo ci yëgul tey bu ëllëgee da nga fa yegg hmm. yonent bi bu masaana xëy danaa yàlla yow mi yore jàmm yàlla nag ma jàmmal hmm. allahuma anta salaam wa minka salaam wa ilayka yawul salaam حينا يا ربنا بسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام وادخلنا الجنة ëllëg boo nuy wërsëgale sax aljana nag nu may jannatu salaam am na àjjana joo xamante ni àjjana salaam rek la tudd muy àjjana jàmm kon nag acteur politique yi bu ñuy bu ñu bu fii ñu toll nii nañ góorgóorlu ci jàmm mm-hmm. euh, bu njëkk dañ daan sos lu ñuy wax école du parti di fa jangale doctrine parti ba yar ci ndaw yi tagat len ci lolou ñu wat ci jangal den tagat len ci waaye lepp nak ñu teg ko ci jam ak deggu ak jëflante bu rafet ah bu ñu yeggee ci jongante ñi jongante ñi wara a jogen ku bëgg postuler nga postuler kën téré wul ni bul bul postuler ay bo postuler bo yalla maye ndam nga sant yem nak ni ya jëlul engagement Mm-hmm. amaamallaahi sa diggante ak sa boroom ni danga bëgg liggéey wuutu yàlla ci jaamam ñi liggéeyal leen mm-hmm. doon seenub jaam doon seen serviteur la nga war a def nga def ko su fekkente ni ñàkk nga nga sant te gërëm delluwaat dans les rangs jaajuwaat mm-hmm. ba keroog yàlla lay jox ndax yàlla mooy joxe mooy xañe tuutil mulka li man tashaa wa tanziul mulka li man tashaa wa tuizzu man tashaa wa bi yadikal xayri innaka ala kulli shay'in qadir loolu kooku domaine am la nañ ko ko bàyyee ah, loolu daal fànn googu itam loolu lañ ciy wax xale yi xam nuñ ciy doxe mm, def ko ci defin wu sell mm, su ko defee rek incha allahu taala fu ñu bëgg yegg danañ fa yegg loolu daal ci gàttal mooy kàddu yi nga xamante ni doon doon nañ ko tënk média yi itam surtout média yi ngeen yoroo ngeen moytu ay fausse information ñëpp ngeen di taqal bàyyeetu leen kenn mhm. kenn lañ bàyyeetul fi mu ne mbalaanum mm, kiiraay mi yàlla mbuuroon sëriñ si sax xalifa yu mag yi sax fim ne bar yooyu dajj nañ ko mhm. ñu wattandi bu ñuy wax ci ñoom mhm. ñu xam lañ cee wax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam luxumul yi masmuumatul yàpp euh, wàllu yu yàlla yi seen der yalla da ko empoisonné ku len ngank ba dewen da nga daj doto am ño xam bo len ŋànkee ren ba dewen di nga tal len ay doto len talati humul awliya masmumatu mu delu wax ni man ada li waliyan ku nono sama waaye faqad awdatu bil harb. ku dekk sama waaye dëkkoo sama way yoje man mi nga dekk bu njëkk di ne faqad awdatu bil harb. benen bi mu ne faqad adantu bil harb. ah yàlla nag ñaanuñu yàlla bokk ci nga xam dañuy bëre suñu borom suñu borom daal lu ñu seq ak moom yàlla nañ bokk ci xamante ne saa bu ñu ne ko allahumma mu teg loxo loolu daal la ñaan bu ko defee nag ñu ñoŋal sàmm ormal kilifa yi mm-hmm. eh, li sa làmmiñ da nga ci wax lu baax mm-hmm. wala nga noppi saw làmmiñ da ci wax lu baax wala nga noppi bu ko defee suñ defee yooyu rek yàlla mën noo suturaal